oo jotuma la démb laa la njëkk a woo Papa Ndiaye bàyyi li ngay def waaw mbokkum yaayu mulaay borom lig imo réew mi yéen a fi yor appartement yoo xamante ni fu nit mën a jóge ci réew bi bu ñëwee dina fa dal te coow du jub <laughs> gëj laa gis gëj a am gëj a jaaxle yow yaa tax kenn fanaanatul ci mbedd yi Papa Ndiaye <laughs> waa Ndiaye bëggoon naa wax Ndiaye dugalal ma weccet doo fan yi damaa xewar de fani xewar naa de fani sama kafe gi sax dama daanu kooku Ndiaye Ndiaye côté ma borom li li moo ah mbokkum yaayu mulaay dëkk bi yal na sa jàmm ma xaar ko waaw maa ngi téye bi nii <laughs> waaw. Cés. <laughs> <laughs> waaw laay. Cés yow nan nga def ba am numéro Ndiaye mi Ndiaye mi fi àndaloon la. waaw Ndiaye la. Njaay mi ñi ma fa andalon nga ñi ataya waaw ñuy wax waxi Wah yi waaw Njaay la waaw borom ak fondement yi mu wara def moy borom lit yi mo xamoko mom la ak Njaay la yow yow yow ko la jox numéro da sama xat yi fi ñew nan nga def bay jël seen numéro di len wo dañ ma bëgg xama fi la tagon table buñu génné rek man la joxale ma seen numéro Oui. Kaaw. waaw. ça va Diabou. ça va. na nga def. maa ngi si jàmm yaa ngi si jàmm. ça va bien naka affaire yi. mun naa toog fii. toogal waaw ah, d'accord. xam nga nag laal kilifa moom. <laughs> toog lay laaj. mun na ay tànka bi tamit. waaw toogal defal lu la <laughs> waaw man nag. damaa ñëw pour ñu waxtaan ndax loo waxul nit mu teel ko am si teel mun nga dem ba si biir mu ne pourquoi waxoo woon li léegi nag bëgguma nga dem ba si biir nga ne lan moo tax kaa waxu woon affaire soole pour en cas ku ma gis gis rek identifié naa yow kan moo la wax bâtiment yi muy def ak Luc Imo yow lan la yow cas lan mooy sa problème da ngay déglu. da nga yaakaar ne waxuma ko ma nit ñi daañ ñëw fii daañ ñëw ay Thiès wala Dakar duñu am fu ñu wala bu ñuy liggéey <laughs> ailleurs duñu am fu ñu ne man ma leen di jox ay appartement meublé yu sedd guy ñu fay fanaan ba xëy doxi seen soxla. léegi nga yeewu nii woo ko di ko di ko di ko laaj xaalis. damaa woo damaa dëgër nag de laay fañ damaa dëgër dépassé bari fantama de paasi <laughs> kan no nah, <laughs> mhm. ka wobbere fandama sonno de kamnani après nga wo pammulay ha pammulay la dem ma pare wo pammulay xarit tam mulai? Kan ñam ñaare ah fofu ngay xamé ni koku da wo kongu ni xeer baxna mais mais laay bëggoon naa ñu waxtaan lai, lai, laay laay kontan nanti? sa papa <laughs> normal bii laay tey dërëm comme ku naan ñokket ah wah, daal tak takk jabar c'est vrai di nga kontaan. ah xolam de sedd na moom. waaw ne ah. xol yaay Messi. bi nga teel a njëkkee ñëw fii si wetu douche bi jël naa la wax ak yow mais boobu mënu woon wax ak yow yëpp dama lay junj rek nga am siyaas du noonu. Soda Soda dafa dangereux wax naa la Soda dafa banqué. Hmm? Soda am na doole dafa soxor Soda ah dafa fiir boobu ñaari xa ñaari muus yi nekkoon si biir bi beneen muus bi ñëwee amaat beneen jigéen bu ñëw dafa dakka benn muus bi ndax fiir bu mu fiir ma lay wax nag demel ak moom pridaas demel ak moom xel jabu ndax gis nga sa sëy mun na neex te doo si boole xeex doo si boole xuloo doo si boole coow régler sa place nga diiñ sa place te nga bàyyi ko moom day wax day délire day yuuxu dina def lu nekk jàppal ne nag heure bu nekk mën na yuuxu quatre heures du matin deux bu nekk mën na yuuxu bul ko topp soo ko toppee kër bi day jagsoo hmm. te dama lay wax moytu ko de te moom moo wax la leneen lu ma xamul dafa mun siriñ. lan lay ragal ci sooda ba kay moytu kaaw. Hmm. lan lay ragal ci sooda ba kay moytu sooda jeeg la may jeeg day sëy may sëy. waaw lu mat jaay nag naa ko jënd ba mu mat sëkk duma ci daw yotaa dafa foog dama koo ragal lijjantiwu ko xale bu ndaw laa sooda bu dof dofloo ba dugg si man. Hmm. maa ko gën a capable maa ko gën a bandi du wax na ko ci biir waxam nee na man bandi la hmm. xamagu si dara. <laughs> xool yaay Messi nu mu mel. Seydou Guy. noo ko xamee. gaaye ko. ñu <laughs> ne bu yeboo nga utoo ay jinjeer. ay Dakar ay buy. yooyu baax na si moom de buy bii buy jawbe bi. waaw jëndee ko. dee jox muy naan si affaire yi di ko ko jàmbal boole ci. lu tax loolu nu mu koy doyee. xale lay seel. xale xale lay seel. léegi buy seeg xale. xam nga dërëm moom mag la di xam nga mag la. voilà xam nga xam nga xale yi léegi xale yi léegi danoo danoo deewaar de. César yow da nga xam nga papa mag la te mën naa am kër kan yaa gaaw ñu ñëppay de taxawaayam si kër gi dara la si yow de. waaw pour yow dërëm du dara da lay couverture. waaw léegi nag. léegi yàlla daa dogal na mu am xale bu ndaw. dama bëgg nga soigné ko lijjantil ko ko ya bul bay mu jënd ko jëndal jinjeer ju saf saf bu amu suukar sax nako naan waaye léegi pour lan la mom boy bu ndaw la tak yoo xamoo xalé yi te jàbb mii ma gis mo ñi élasi ga pay sàngole ko jaaxaanal xam nga di yëngu ta bay si tok léegi def lu tay ko lijjantil ko lolu ci mi ma gis te booy léegi dunoo deewaat de xanaa booy léegi si si kaw lal bi la ñuy def la ñuy def terrain def ay gazon def def milieu mu ñuy sangole paa yi de sangole ko nii mën naa sangole paa bi <laughs> takkee ñaari loxo yi takk ñaari tànk fu yëngu te booy léegi loo leen xawal de ba pare taxaw na mel ni jinne bëgg laa jommal taxaw si kaw lal bi xaa fi ñu mujjee yow krek krek krek nggak lah. <laughs> Boy budak desa tak bar Al-Quran boy dah boy ada tak. Boy wakana, kana. Dina kau ay ay ay wiri ay karbatas. Fagu ko <laughs> kornis atak yim ko naro Tak. Amna bu tanya xey deureum leg nu ñak ko jabura bis bu dof dof lo ba dugg ci <coughs> te lu ma jaay nag dinaa ko jënd. Ah, te nga bañ a fekk si rythme am bi. dinaa ko ci fekk si parce que li mu indi nii bëggul jàmm te li mu indi rek laa koy delloo. te jabu boo defee loolu di nga def musiba naaru laay de bul dugg si yooyu bul dugg si yooyu yow da ñëw pour sëy ñëwuloo pour coow ñëwuloo pour def dara moom nag bàyyi ko mu mel ni gaynde bu jaay ndawal. bul wax ak moom bul def moom dara te mën la koo sente de. waaye kaw moom dafa foog ne dama koo ragal dafa foog ne dama koo ragal. ndax ay jamono tase nañ ci mbedd bi mu may kii may dem noonu mu foog ne loolu dama daw wala dara. Mm. fekk boobu daa am lu ma doon bañ. sëy si naa nag. lu mu mat jaay dinaa ko jënd ba mu mat sëkk. waaw yow ku muñ loolu nag boo sëy see nga war a gën a mën mel xanaa amoon nit ñi nit mu ngi daw nit nga defe ne dafa ko ragal fekk ne dafay daw coow rek day daw ah génne la daw coow man loolu rek laa lay wax bugguma sax mu ñëw dëggal ma génne sa néeg mu ne fa moom ma seytaane nga man moom tampon boobu la ma defal tampon naa figé la ma la nee na moom man seytaane la lan ngay làqatu di du loolu sax de di rek xam nga nit booy defar te nit comprendre lu dangay jaar si suuf nga defar loolu laa lay wax rek sa yàlla sëy bi bul boole wax waaw des fois nga nekk ak dorom si biir nga naka seen bi ngeen sëy seen sëy loolu rek laa lay wax dégg nga wax bi. baax na dégg naa. voilà c'est ça loolu rek laa lay wax may ma ma yëndu kooku may ma ma yëndu kooku baax na waaw. waaw ma ma yëndu kooku baax. Oh oh, oh, oh oh mu ma ñuy baat bi mu kepo lu kau mi daragal sooda Nih, sudah mi gaydel jegal sa waay gis nga ko tey tey teew la nag sëkk sëkk rasulullah ma ne ko xale baa ngoog dégg nga ma ne ko xale baa ngoog sa paatek dem ba yor eh mi dun nga des beleen sa maam la nga barki rasulullah alaaji ahmad baro sa maam ku baax ¡Eh! bokk fu baax. bokk fu baax. barke yonent bi. ba jugee màkk. ah. <laughs> daal hôtel de l'Indépendance. de l'Indépendance waaw. wallaay dëgg la de. barke yàlla wóolu ah. kilifa gu mag. Ah. yamal foofu. wala yow. ah nag juróom nag nag nga ma nag. Ah. juróom nag. juróom nag eh xaaral. bisimilah eh, sooda. Sooda. waaw Sooda. Sooda. Sooda sa ceeb mënu ma koo lekkee ku. yëngal yi xaar leen Soodam xaar leen Soodam. jéggal jéeg bu mag bi déggal loolu jéggal jéeg bu mag bi bilaay mina seytaani rajim dégg nga lii dégg nga bilaay rahmaan rahim la laa xoot alhamdulilah déggal jéeg bu mag ak jéeg bu ndaw eh, yal na yàlla def jàmm lekkal bàyyi wax fii laa laa la wala xaw xooñu démb xëpp ah ñu may soog a rax waa lay mel ni ku yor cere ah wisuma kanamu kenn da sama kanam laa wis billahi mina seytaani rajim lekk première kudd mu rees ak jàmm ah hmm, añ bi ñu lii na waaw hmm, koñ ji xanaa nga laal eh eh ma dëbb kaani ay waay jéeg ji fi jigéen ñi ba jigéen ñi nag jigéen seen yi nañ leen jàngal togg waa lii ceeb bu xonk la wala mbaxal wala lan la. dëgg la man de damaa yaakaar fël-fël la. lii lewet na oh ay waay waroon naa bitig ba tëj na kaani laa waroon jënd def ci kirmas yi. mais man sama génn. jakkat ah eh, jak. lekkal baa nga jóg. waa Kaaw doo jóg daggal ma ci lingom bi fee tuuti. lekkal <laughs> baa nga jóg rek neex na de pourtant. li ngeen di lekk na nga lekk baa nga jóg. lii daa tooy di. sa gémmiñ. ah maa xam laa nag ba jigéen ñi di nekk seen kër yi di togg. seen ndey yi di leen jàngal seen ndey yi xam lu ñu taxawaal ak cagatu. Hmm? bu ñu xëyee sol seen i daal. puudooru ba mel ne kuy simb. pourtant nag ceeb bi xaw naa gaje xamuñu ni ñuy rusee xamuñu ni ñu liggéey waaw jigéen balaa baax na day mën togg. ceeb bi daa gaje jigéen dëgg day ñeme waañ. waaw man ba ma xëyee. gis kër gi xeeñul dara man xam nga bu ma daan togg saxaar gay wane ne man nii maa ci waañ bi. waaye xool nii yàq lay saw rongo nar a dee xëy puudaru mel na ku simb kat dëgg de yow ku xool sa loxey xamne mu no rosi booy sa internet lañu jeni sax lekk ko musiba la ndax ko munul togg sa waas gu set bilaay booy appliqué ah amul hygiène lii lekk ko erreur la amul hygiène eh eh no pil amul hygiène la ma kan mu laa puus xolo xoon ji tasul sa kat newu eh dana xël te nga jóg mu xam sa tey laa bëgg togg añee ko lii ñaaw na man li ma métti. laay saw dépense am nar naa jeex. waa lii ceeb la. nga jaxatu bi ñorul lii bu eh kaam wax la. bu doon mbaxal sax dafa war a tooy lii tooyul wowul. ba pare ñu jàpp fël-fël fël-fël yi ko doon jaay kii fan la loqat de fël-fël. te ba ceeb bi daa roobaate eh, du tamaate de fël-fël la. ceeb bi moo roobaate. baax na. lii lekk ko wóoru de. góor bi eh, eh eh góor benn boutique la ceeb bu ñoru góor du ko lekk. ay eh, man ko sama benn boutique bii benn allée ah. waaw. li ma xam laa wax dama ah. sooda dama dama ah damaa yàgg ci cin nag. sooda bàyyi lu ma def ba pare moom fan la loqotee fël fël. ceeb bi moo roobaati dafa dafa gaajaaj. te ceeb bi tooyul wowul. gaajaaj la def mooy walbati bi moo baaxul xamay xama xama léegi booy internet lañ toog man nag benn boutique laa am. cakas du si sol ceeb bi muy def retour de falan may gaañu. bu ko nangu baal ma jóg togg mu xam eh. sa defal la ci meew ak amox la soowal la ko mu saf lii lekk ko erreur la de. Eh, eh, erreur la jógal. man kay jóg naa ba yàgg damaa toog waaye bu yàgg. fii toogal ñu waxtaan. moom buy jóg na yóbbaale palaatam wala poupeem boobu poupeem boobu na indi na jël lekkal bu kenn yàqal sa appétit lekkal waaye bul yàq appétit bi te boole ci yow jën yi sax dafa sëcc kii xanaa laaju ko ah waaye nit boo xamul dangay laaj bu mag bi mel leen lu yow dërëm doo lekk ah yow jën bi bii mooy bi xasan yaram nag man mii ndaxum si waaw yow jën bi kañ la ko jën bu ñuul bi kañ la ko nit gëj a togg ay waay dërëm daay. lii ñaaw ya booy bu sonn bi. waaye xoolal dégg nga xoolal xoolal moom xamul ndox si xamul dara yaa ngi gàkkal di nekk rek. moom daa bëgg woon na nay ñuux rek yow ci atum ren nga nar a dee kii saa yu toggee yow da ngaa nar a dee. lan moo tax nga def si ah? añ ba pare jóg dem bàyyi ko ah yow lan laa la waxoon ci soodam yi la waxoon ci soodam nee naa la kii jarul sóoraale kii jarul bàyyi xel. fu mu toll nii xamul bu tooy xamul bu woom yow ceeb bi nan na ko yow yow affaire yow yow yaa war a bàyyi affaire wujaale yi wuj xoolal li nga def xam nga li nga def dara rafetul boobu ngay nekk di wax boo muy nekk di def li dërëm eh. togg a jóg a dépassé am di lu yàq ci jabaakam ba mu ba mu yàq ci jabaakam boobu yàq ci nga def ko li nga ko def li nga def teguloo ko maa tey maa tey mënu toog a toggam ba mu togg fi mu ne nga bëgg a ko ñoo ka gémmi gi ne non non maa nga bëgg ko def ni nga ko def ñu woo woo maa def ci ban sa lekk ñaaw na de li nga def kenn ko def lii laa la wax li nga def ma mu wax a far far ma kattal sama bu ko de Ah, ma fas ngay xool. waxal lu la neex seytaane bu mag bi nga nekk. yow xamoo ceeb bu neexul yow bu la dërëm jàppee. yow xamoo ceeb bu neexul xamoo ceeb bu gàcce. dafa neex ceeb bi xam nga lu tax neexul sebet bi la. dafa neex maanaam bi muy sebet mhm. ceeb bi la najul. xam nga dafa neex xam mu doole naj ceeb. dëgg la ba pare jën yi dañ koo tëmbal. Ah. kii jarul suuraale kii jarul bàyyi xel boo ko toppee nag di nga yàq sa sëy bi boo ko toppee di nga yàq sa sëy bi. ñëwal nga dem toog ci bool bi nga an kay du ma fa delluwaat ni ma def ma daj sama ceeb ceeb bi la di ma toroxal ni ceeb bi dara ci ceeb bi moom neex na macha allah togg nga ko jox nga ko akam jox nga ko neex na neex na waaye yow boo naree topp sooda ci ay ay caprice daal gis nga da ngay am goitre léegi dee bàyyi sa yi ngay def bul topp kii man li ma def nii mën naa ko lijjanti de mën naa ko lijjanti mais damay bañ nekk fii di wax walla dara ñu ne man man sëy indiwu ma fi te sëy ma fi indi moo tax ma jug ñëw toog fii waaye li ma def metti na ma torop lim la def nag bu mu la metti man xam naa li la indi ci biir kër gi xamna naa ban façon jigen nga xamna ni it kat nga deng mais nak jigen da ngay muñ da ngay muñ du bu méttee nga nga nga fepu ah parce que tay ji gagné na la ci ben point togg nga sa agne tek nga ko nakaral na la jog nga ya di di fepu ci kanamam mu andab mo ngi ne toog di re ah mo ngi ne tay may nga ko lu mu ree waye so togon ci ndabli li bañ faale def ni ma def bu bu moy russe rus parce que booy wax nag nit ñi faalewuñ la bu yàggee nga am gàcc waaye tey jii may nga ko victoire moo nga la toog victoire bi nag pour nga dindi ko il fallait nga jóg ñëw dem toog ca boolu añ ba ngaañ. dama def ni moom wax dëgg yàlla moom tey moom li nga def moom moom da ngaa daanu dëgg. waaye nag ñu togg sa ceeb bu neex bi sa ceeb bu xonq bi ak li ci daj lépp ah? yow bu soodee di def affaire am yooyu que bu bu mu tax nga gedd di jóg di dem ah fi mu ne nii man boo demul mënatumaa dem ca bool ba di fa toog di añ te bu fay jaaree suur yàlla ba man lépp dinaa ko dinaa ko lijjanti dinaa ko régler mais lii moom bu mu la dalati soo te sa añ ba teg ko lu la waay mën a wax lu la waay mën a wax toogal nga añ sa añ bu mu jeex nga jóg dem soo ko defee benn yoon ñaari yoon ñetti yoon boobaa ku ci amatu looy wax ci ndax di nga bàyyi ba ba ñëpp jóg nga wax ko loolu laay wax moom suur naa bàyyi dem toog ci biir ne non garawul garaw boo añul lu may añee